non téyel ba dugal ko. waaw déwén ah seen seen partagé le micro bi ak Fatima. dama wala lii dama koy dugalal de joxal kii nii. non mais yéen ñëpp waaw dama dama koy teel suñ duggee ma jokk. jonkana taxawal. c'est bon ah. comprendre euh, fondateur kii bi comprendre ngeen. Euh, waaw. c'est bon internet yi ku ñu ku ñu baaxul. moom moom ma taxaw di acca acca jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy seetaan gis ngeen ñu ngi fii tey si Nord Foire ñu fi fekk nag mooy association des jeunes entrepreneurs ñu naan AJS ñu gën xam le coordinatrice mooy kii di Mamy Mamy salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam ñu ngi leen di fay. alors tey la ma war a doon tey seen teewaay fii. en fait tey ñun les jeunes entrepreneurs dañu doon organiser ay ndogu. but bi sax yóbbu ko campagne la woon mais dañu joxoon ñaari autorisation fausse date bi. tey ñu woo ñu dafa am ay conférence ñuy def foofu noonu moo tax demuñu ñu def ko fii Nord Foire def social distribuer ay ndogu entre nous. lan mooy objectif bi lan moo waral ngeen créer association bi. association li tax ñu créer ko mooy jàppalante suñu biir parce que suñuy mag rek ñoo fi nekk yor seeni association di ko doxal lu si mel ni les jeunes stylistes te ñun ñi fi nekk ñëpp ay xale yu gëm am jom am fulla ak fayda ñoo fi nekk ñi ci am vingt ans da nga koy compter bëriwuñu bu amee it benn la incité bi la la accordé maintenant li bi nag am nañ ay projets yu bëri voilà parce que képp kuy liggéey am nga ay projet bëgg nañ organiser ay foire bëgg nañ def yeneen ak yeneen du ñu yem fii kase. pour nga pour nit rejoindre maanaam association bi ni muy demee est-ce que maanaam jigéen ñi rek la wala góoñ parce que tey dama gis fii ay jigéen ñoo fi nekk. waaw ay jigéen kese la nag association boobu ay jigéen kese la. maanaam amul góor. même même góor bu nekk si dugg. non non. bien sûr voilà. amul de. ok lii ngeen organiser ko yombul woon. yaawa est-ce que am na ñeneen peut-être ñoo xam ne jàppale na leen wala ñu nekkoon si nekk seen ginnaaw. na ma mi continuer. waa début bi nag suñu doolee lañ doon demee ndax ñun ñëpp dañoo bëggoon ku nekk joxe sa ñaq ñu daal di ciy def euh, def social joxe ko mais bi ñu demee ba ci digg bi am nañ ay pare yoo xam ne fekk si nañ si lu si mel ni ministre de la jeunesse ak Doudou ñoom jàppale nañu si bu baax ndax duudu ko jox nañu ay denrées alimentaire jox ñu xaalis bu bëri nañu dem leen defi social euh, ministre de la jeunesse aussi recevoir nañu waxtaan ak ñun tegal nañu aussi ay projet pour après euh, événement bi nii voilà. combien de genre projet. waaw loolu nag euh, bu génnee di ngeen ko xam incha allah. <laughs> waa ñëwuñu nag mais seen loxo ñëw na seen i doxi li ñuy doxee pour ñun aussi ñu ñu passé lii si jàmm def nañ ko lu ci mel ni Mado moo doon dox ay jéego yu yu am solo pour ñu mën a dem camp joxe fa ay ndogu Jojo Golowski moom tamit recevoir nañu jox nañu aussi jàppale ñu ak Bijou Ndiaye est-ce que association bi dafa nekk association apolitique ou bien. genre. apolitique maanaam est-ce que maanaam da ngeen di yëngu si wàllu politique ou bien. non non social boole bokkul dara ak politique bokkul dara ak politique. tey social la ñuy def social la ñuy wax waaw. parce que ma gis ngeen dem maanaam si mini si yenn ministres yi peut-être ñoom tamit bu ñu leen soxlaa tamit peut-être mun nañ appuyer si loolu. non du dañoo dem si ñoom. dañu gis suñu affiche mu intéressé la ñu bëgg jàppale ay jeunes ñu wooñu waa loolu la rek. c'est ça waaw. lan mooy seen perspective lan ngeen di xaaral à l'avenir lan ngeen di projet long terme. waaw loolu nag euh, xamaguñu dinañ waxtaan suñu biir waaw am nañ ay projet daal bu génnee rek incha allah yéen ñëpp di ngeen ko yëg. pour yéen xale jigéen yoo xam ne ñoo tamit ay entrepreneur lañ bëgg maanaam bokk si groupe bi nu ñu def pour rejoindre. waaw ku bëgg adhérer rek mën nga ñu woo ci numéro yi nekk si affiche après dinañ defaraat benn affiche boo xam ne numéro jeune entrepreneur yi moo ci nekk parce que affiche bi nga xam ne si la ñëpp doon woote numéro personnel yi fi ñi fi nekk rek a fa nekkoon dinañ defaat beneen affiche numéro jeune entrepreneur ku bëgg adhéré rek woote foofu. amul ay règlement wala affaire yu am na ay règlement bien sûr. mooy yan. dinañ teg règlement yëpp affaire yi bu génnee rek lépp dina. lépp dina leer. merci beaucoup ko. Mhm. alors yow sànq dama laajoon benn question mooy peut être association mu nekk association bu ab politique euh, yow la peut nga am fenn foo xam ne far fa est ce que association bi. ne man kenn avant association association bi yaakaar naa bi ñu ko sosee léegi matagul un mois si deux semaines lay kon loolu c'est moi. mais association bi sociale moo ñu taxoon jug tey et que on l'a fait pari bi réussir nañ ko tey et que lii di ñëw suba mooy que ni liggéey bi ñu woote ñun ñi fi nekk nii. parce que ñi fi nekk ñëpp ay jeunes lañ li ma leen waxoon sànq entre guillemets ku ci nekk yor nga sa place di jaay yor nga sa yére di ko jaay te kenn jàppalew la te képp kuy liggéey ku nekk soxla nga ndimbal ak appui. ñun nekkuñu fi pour Jean wala pour Paul mais ku pare pour jàppale ñu ñun pare nañ pour ubbi suñuy loxo tàllal la ñun aussi lu ñu am parce que kenn ku nekk ci li nga am ci loolu ngay joxe te ñun ci lu ñu am mooy suñu liggéey ñu ci fekk dañuy jël ñu Jean xaaruñu Paul ñun ñi ñëpp ku ci nekk da nga yor ay place di fay ay jeunes ñu lay liggéeyal tout à l'heure damaa dégg benn question ngeen posé ma ko ci cadre PDG ku mu neex nga tuddee sa bopp PDG parce que dañoo créer suñu propre emploi créer suñu propre turu entreprise di jël ay jeunes di leen liggéeyloo di jël ay xale di leen fay ku ci ne da nga koy fay weer bu dee livreur bi ngay jël mu lay livreur kenn ku ci nekk ci ñun am nga lu ëpp cinq livreur te ñooñu seen gagne-pain ci ñun la nekk kon ñun ñu ngi créer emploi ku mu neex nga taxaw woowee sa bopp PDG parce que créer nga dara loo xamante ne bi dix personnes ñu ngi ci jariñu kon loolu rek na la appui la boo xamante ne bi ñun ñu ngi koy may suñu bopp léegi ñun nag ku ñu xool ci loolu ba li ñu ne nga xeeb ko ñun xeebaluñ ko suñu bopp parce que ay jigéen lañ comme ni ñu ko waxee fi ay xale réew ñoo fi nekk am ñoo xam ne rax nañ am nañ ay jëkkër mais ku ci nekk da nga gëm sa bopp taxawal sa liggéey nekk ci loolu noonu te ci li ñu nekk gisuñu nit buñ ciy baare wala nit bu ñu ciy faxastal parce que nag ñu ay ragal ko ragal du placer ah, euh, entreprise am ubbi boutique di ko fay par weer di fay employé def impôt export di fay douane tout ça kon ñun ñu ngi contribuer ci réew mi parce que sa place bi nga teg da fay da ngay fay euh, maire bi da koy fay benn photo sax boo ko tafee sa buntu place mais da nga koy fay kon ñun ñu ngi contribuer ci réew mi ay doomu réew mi lañu et que lu nit di prouver mën nañ ko fi prouver et lu fi nit di def mën nañ ko def et que ku ñu bëgg a jàppale ñu porte pour kenn mais dem ñu aussi pour demuñu doxuñu tànk pour dem ci kenn ne ko dañoo bëgg nga defal ñu nangam mais ku ñu jox dañuy jël que ça soit clair ànduñu ak Jean ànduñu ak Paul mais ku ñëw pour ànd ak ñun ñun dañuy ànd ak yow si kaw nga jëriñu dara loolu rek la. non ñun xam nga ñun dañ ne dañoo toog bu ñu demee ñu ñu ñu recevoir ñu ñu si bëri dañoo yaakaar ne yenn yenn ministères yi c'est pas accessible mm-hmm. bu ñu demee le ministre nous a proposé ay affaires yoo xam ne ñun xamuñu woon ne existé na ci dëkk bi mm-hmm. parce que yenn fonds de travail pour ñun ñun amuñu ci accès et ñu sa expliqué clairement que ni lii ak lii ak lii fi dem ñun aussi dañoo laajte parce que dañu xamuñu dañoo laaj ministère bi ndax gis ngeen seen bopp ñun gisuñu suñu bopp parce que xamuñu et que bi mu ñu expliqué ñun tamit comprendre nañu et que bénéficier ñu si aussi mais buñ ci bu ñu sañoon comme toutes les sénégalais ñu pour ñu ñu ñu am ci suñu suñ suñu wàll ndax fi non ñun dama ne la ci li ñu bénéficié mooy li ñu liggéey dajalee ko ubbee ko ay place ñu jënd ci ay machine ñu jënd ci ay nangam ak nangam pour mën am suñu appui bopp pour liggéeyal suñu bopp te liggéey boobu noonu tey li ñu def fii ci ndogu ñun ñoo ko cotisé suñu bopp ñun ñuy taxaw fii ñëpp t-shirt yi ku ci nekk dangaa jël sa xaalis jënd sa t-shirt pour nga sol ko xam nga koon kon ñun kenn jàppale wuñu ci li ñu jàppale dama ni ñun bañuñu kenn ku ñu jàppale ku ñëw pour jàppale ñu boo ñu joxee loxo ñu delloo la xam nga la ñuy bañ ay waxi kese taxuñu fee taxaw wax dëgg yàlla loolu kese la moom benn conseil ba moom ngay jox ñu ngi sa jigéen ñi nga xam ne jaajëfalee koy saluer hmm. mais da nga wax gis nañ ko fi ci ndogu boo xamante ni macha allah riche na xam nañ ñu la yéen environ a def lu mën ñaata ngeen ñu mën a wax ni lii ngeen mën a def ci cotisation wala boobu budget ñun xamuñu sax parce que tey liñ doon ñu defee suñu calcul <laughs> ëpp na million di dem te lépp dañ ko joxe kon ñun xaaruñu pour recevoir tey dañoo joxe mooy li ngay joxe te yàlla rek tax léegi nag fay suñu borom fu nekk lay jóge quoi te lu ñu lu ñu waaye di jàppale dama ne dañu dem ci kenn pour saraxu kenn wala pour wax la ne la lii ak laa mais ku ñëw pour dimbali ñu ñun ñu nekk ay jeunes dëkk ci réew mi te kenn ëppalewu ñu fi dara ku ñëw pour jàppale ñu dañuy jël c'est ça social la ngeen yem non non non non parce que li la kii wax mooy que ni bari na ñun li ñu lu ñu lu ñu def nii kenn kenn ku ci nekk am nga ci loo yëngatu te bëgg nga ko exposé doomu aadama yi gis ko te mën nañu xaar suñu bopp fépp ci àdduna bi parce que bëgg nañu organiser ay foires biir Sénégal ci biir régions yi ak fépp fu nekk ñu dem fa su jëree ñu génn biti réew ñu def ko mais lépp lu ñuy def rek Sénégal lañ koy njëkk pare ngeen euh, c'est bon c'est bon ok kan.